jangeen jëf mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci ak pàttali deltu gannaaw tuuti gannaaw la xewoon fële ca audition bi amoon ci diggante Ndeye Khady euh, njaay ak euh, Adji Sarr Ndeye Khady dafa wax démb ni xàmmewul Adji Sarr aji ma mu jàkkaar looloon fële ca section de recherche bu Colobane bokkul ak aji mi mu gisoon démb lan mooy seen waxtaan wu njëkk ci lañ bëgg a dikk indi ab rappel tuuti ñu bàyyiwaat xel lan moo xewoon ci diggante euh, Ndeye ak Adji Sarr fële ca section de recherche dégg naa version yi xaw naa wuute am na ñaar ba ñett ci diggante Adji Sarr la mu wax section de recherche ak la mu wax fale démb ndax benn la wala bu benn ba tax na Ndeye Khady Ndiaye nii xàmmeetul Adji Sarr nañu delluwaat ginnaaw tuuti ñu déglu diggante Ndeye Khady Ndiaye ak aji Sarr ba yëf yay doog a door ci section de recherche nan la yëf ya demee woon ci diggante Adji Sarr ak patron bii di Ndeye Khady bu mu coupé rek si brigade recherche woo téléphone ne ma Ndeye Khady Ndiaye ma ne ko waaw munu ma yaay liggéeyoo ak aji Sarr ma ne ko maa koy liggéeyloo sama kër Sweet Beauté munu ma est ce que man ngaa wuyu si fii ma ne ko dama yor doom te munu génn bu fekkee man ngeen ñëw munu ma waa mën naa ñëw pour ñu déglu la ma pare ma wax sama jëkkër bi sama jëkkër bi ma aji moo def lii ma ne ko waaw avant brigade de recherche wax nañ ma ne ma ndax xam nga Sonko ma ne leen waaw booba laa xam lu xew foofu ma waat aji ma ne ko aji yow loo def nii aji na ma temps sama papa moo ma dugal parce que man damaa ëmb sama papa génnee ma kër gi ñaareel ba maa ngi fii ma ne ko yow lu wàcc lu ma lay wax tontu ma ci loo wax brigade de recherche mu ne ma Sonko daf ma violé ma ne ko fan la la violé mu coupé téléphone bi waxaat toog man brigade de recherche ñëw attendre ma ma wax leen lu ma xam. comme li ma wax nii lii laa si xam lii laa ko expliqué. Dakar Matin. ñu dellu ma woowaat ma dellu demaat. te bu duur lool Sénégalais yi damaa bëgg ñu déglu ma bu baax li may wax man xawma caaxaan te bu ma ko mos a xam si àdduna sama institut di Sweet Beauté Spa du institut góor du institut jigéen institut pour ñëpp la am na jigéen ñoo xam ne suñ ma déggee dañ xam bu baax li may wax sama institut jigéen ñi ñoo fa ëpp luñ fay ñëw góor yi parce que du benn produit laay def massage moo gën a tuuti ci li may def sama institut damay def massage damay def gommage du corps damay def pédicure manucure damay def soin de visage damay def épilation affecture damay def pose ongle damay def cils tey dañuy léttu parce que dafa am salon de coiffure bu nekk ci biir xanaa loolu yëpp mënut am ci kër foofu caaxaan dafa am. institut de beauté suite beauté ana bu mag moo nekk ci buntu kër gi nga xam ne man nëbbatuwuma te kuy foo da ngay nëbbatu kuy foo da ngay nëbbatu te ma xamal sénégalais yi ne Sonko bu muy jour bi mu njëkk a ñëw sama kër 2019 man mi maa njëkk a commencé jouru tabaski la tombeel barke Seydina Mouhamad ak lu ma yaakaar ci àdduna yàlla bu ma ko yàlla suñ borom bi may jour boobu bi mu ñëw mi ngi fekk maa ngi toog ak sama jëkkër ñuy rendi xaram tabaski élève yi dem seen kër sama loxo yi tax lépp deret ma ubbil sonko mi ngi woote sama téléphone fixe bi ma ko tëjjilee mu ne ma waa yow sa numéro fixe bi dafa niroo niroo Eumeu Sène mooy institut Eumeu ma ne ko ñu bëri dañ koy jaawale te képp ku xam numéro institut Eumeu Sène Eumeu Sène man sama numéro téléphone fixe mi ngi naa nekk 33 842 quatre-vingt-dix-neuf vingt-neuf léegi képp ku xam numéro Imosène benn chiffre moo leen tàqale ñoom ñaar te barke Seydina Muhammad te mënuma xëy na ba ngoon te wóoñ ma dima jaawale numéro Imosène ak sama bos Imosène donc jour boobu ma ko ubbilee mënuma fii du Imosène man na ko déedéet mu téye farateem nii si loxoom barke Seydina Muhammad mu ne ma man de sama ginnaaw muy nit man ne ko élèves da ñëpp wàcc nañ mu ne ma tee nga maa maase ko ma maase ginnaawam gi mu dem jour boobu noonu feeñuwuma ko moom it waxuma dara mais xàmme naa ko te liiruma si kanamam lenn loo xam ne man war naa mën a taxaw ne moo def lii hmm. gis naa ci kanamam wallaay hanzim du question na dama koy défendre parce que xawma ko mais li ma xam laa wax ku am fula ak ku am fayda parce que am na jour boo xam ne dafa fekk sama jëkkër mu toog si saal bi mu jox ko loxo nii nuyu ko maa ngi toog ba léegi joxuma loxo mu ne ko yow de damay gis ngay sol jàllaabe rek dinaa la indil ay jàllaabe nga koy sol daf mu damay niru ibaado léegi ku xam ne sa jëkkër mi ngi ci biir kër gi kooku dara violé nit ci kër ak fu turam toll ak fu toll ku xam ne sa jëkkër mi ngi ci kër gi muy ñëw di fa fekk léeg-léeg nuyu ko dina violé nit ci kër. léegi yow. ba nga demee brigade de recherche ñu lay entendre lan nga wax gendarme yi parce que wax ji dafay mel ni yu woro walla am na yoo xam ne ñoom binduñu ko ak ba nga demee ci confrontation ak ki nga xam ne moo di aji Sarr lan ngeen fa waxante. bi ma demee brigade de recherche premier jour bi ma toogee ku ma attendre daf ne ma du xam nga Sonko ma na ko waaw parce que maa ko njëkk a maase maa ngi ko maase mille 2019 deuxième jour bu ma ko maasee mi ngi tombé ak équipe nationale di football mooy seen coupe bu mujj bii ñu rate te mosuma xam ci moom lu bon. ma expliquer ko comme li ma expliquer nii ci ginnaaw benn par benn lu mu xewee ak lu aji def trace yépp ma expliquer lu leen ko ñu bind ko. Dakar Matin. ñu dell ma woowaat man ak aji ñu toog bu ñu toogee ñu laaj ma ma jaar fi ma jaaroon. aji ba ma toogee ak moom dafa weddi woon ne oto jël si ko mais mu ki dafa d'accord ne moom oto moo ko jël si parce que xam na ne am naa information bi kanam enquêteur bi te li may wax nii dafa leer ndax parce que dafa war a leer. Hmm. parce que enquêteur bi li may wax dina si jot kon li may wax dafa war a leer dëgg lay doon si kanam enquêteur bi aji ma ne ko yow aji mënu ma naam ma ne ko ba ngay génn kër ga du wax yow da na woon da nga amul. bañ jooyloo ay nit si kër ga ñu la nga ne sa papa dalaa génnee kër ga sa yaay génne la kër ga instant bi xamatoo foo jëm neen dañuy dind ëmb bi ku may attendre mi ngi toog de aji ngi toog maa ngi toog ma posé question bii aji aji ne damaa bëggoon a am dëgg pour génn kër gi te ñaareel ba dama bëggoon maa xam ne su ma la waxoon ne la nangam moo xew doo ma bàyyi ma génn parce que booba da ngay foone damay dem massage à domicile hmm. ma ne ko aji massage à domicile vingt trois heures zéro heure kan moo la koy woo ba man may xelaat lool mu ne pat ma ne ko ñaareel ba aji mu ne ma naa ma ne ko dama bëgg nga taxaw fii ci biir brigade de recherche nga wax carrément sart yu ñuy liggéeyee maag yow parce que da nga bind plainte te da nga bind du lu ndaw jour boobu ku ma attendre mi ngi toog parce que ku ma attendre daf ma jóg na ma dama lay présenté dama lay euh, présenté dama lay présenté am na kenn beneen bureau bu ma waroon a dugg pour ma expliquer ma kooku far kooku ñi dem sa bureau mu génn muy secrétaire bi ñu dem mu génn après mu ne ko maa ngi ñëw ci bureau bi kooku ñëw taxaw enquêteur bi toog ma toog aji toog secrétaire bi na yow Ndeye Khady Ndiaye yow da ngay def massage ay body body aji moo répondre répondre lu ma de aji nekk cabine boobu. loolu amu fa ku dee ak sa bàmmeel Ndeye Khady Ndiaye mii santul ma li ma def te bu ko xamoon du ma fa toog santul ma benn yëfi caaxaan parce que kii xamul lu bon te loolu enqueteur baa ngi toog secrétaire baa ngi taxaw ma del na ko aji mu ne ma naam mana ko li nga def ku la ci dugal mu ne patt kenn dugalu ma ci ñoom ñi ngi taxaw de ma ne ko aji sama kër yan type de massage moo fa am ñoom ñu ngi taxaw dem mun leen tonifiant ak relaxant loolu moo am ci kër ga su ko mooy yëpp ay produits la ay gommage ay pédicure yooyu comme li ma ko limee woon ma kon aji yow li boo fa defoon dara est-ce que xam nga ne man sant ma la ko mun ma mosoo sant lu bon ma ne ko aji yow premier jour ba ma la jëlaat jëlaatee nga ñëw si biir cabine bi lan laa la wax sa saal ba munuma da nga ma na nga góorgóorlu te nga liggéey. te nga moytu ay fen fen day taalam réew ak yi waxuma la lii ma yaa wax lii kay mën na ko kon baax na ñu woo beneen fii bi beneen fii bi ñëw moom it lu mu fa wax ñoo yéen dégg ngeen ko bu baax mais man sama cadre bopp laay wax man sama cadre bopp laay wax aji dem ma dem ma dellu ñëwaat xam nga trois fois lañ ma woo ma dellu ñëwaat sama kër ay 17 heures dem di sangu wala ñibbi hôpital ba enquêteur bi woowaat ma téléphone ne ma dañ lay dégluwaat ma ne ko ah ma waaw ma jaar hôpital bi tiire meew na ko Ibrahima xaar ma maa ngi ñëw parce que dañ ma waat attendre mënu ma waaw gaawal te nga ñëw que xale bi sonn na dem ma ne ko waaw ma dem bi ma demee brigade de recherche ndeke man attendre luñ ma dañ ma loon ma dem ñu teg ma si seize ba nangu sama portable Touré waar ma ci bureau ma ne ko Touré lu xew. mu ne ah gis nga de lii moo xew nee dañ lay téye fii ba lundi ma jël avocat bi ma jëlee avocat avocat bi na leen may leen ko mu dem hôpital bi tiire meew ñu wax ak bi ba xam xale bi dina mën a toog foofu noonu saa yaayam wala ma ànd ak sama avocat ak ture enquêteur bi ak man ñu yegg si bu ñu yegg see ñu woo docteur bu mag bi man damaa yegg si daw parce sama doom bi booba ñu ngi naan ma mi ngi fatt parce que xale bi génne nañ ko si verre bi sama biir bi si lay tëdd vingt quatre heures sur vingt quatre parce que loolu mooy tax du am problème mu nooyi parce que sept mois la juddu te bu muy juddu dafa damaa feebaroon ma daw rek këf xale bi boot ko taxaw benn place ba mu leer na ma ne xale bi mi ngi si jaamu ma doog dem wax ak ñoom. ñu ne ana médecin bi. Dakar Matin. médecin bi ñëw na leen kii doomam bi munta sori yaayam parce que xale bi prématuré la si verre la nekkoon léegi génne nañ ko si verre yi si biiru yaayam la koy teg vingt quatre heures sur vingt quatre mooy tax du am problème mu nooy ñoom ñu insisté ne xale bi nañ ko dugal ci verre bi ma dem te ñëw docteur bi ne moom de risque boobu du ko jël. bu fekkee yéen ñi ko bëgg a yóbbu mën ngeen jël risque bi bu xale bi deewee ngeen jël risque bi ture na ma wàcceel xale bi ñu dem ma ne ko sama doom du wàcc sama doom maa moom ba kaso sama doom buy dee sama biir bi lay deewee mais duma ko wàccee Touré wax ba sonn ne ma kon maa ngi dem jëli commandant mu ñëw ale jour boobu guddi googu sonn na guddi googu am naa lu ma métti sama àdduna guddi googu toroxal nañ ma parce que guddi googu la sama téléphone bi di wàcc ba zéro ñu may woo téléphone ñii naan quinze millions nga changé version bi nga wax ne Sonko moo violé xale bi damaa bëggoon a setal sama institut may leen dee moo ma ko gënal parce que mën naa am doom boo xam ne man na taxawee fu Ousmane Sonko taxawee bu ëllëgee lu ma def sonk lañ koy def kon du question dama jàppale Sonko de dama wax sama diggante ak yàlla suñu borom dama wax sama diggante ak lu ma xam mais guddi googu duma ko fàtte ba koro yomal xiyam guddi googu dund naa loo xam ne sama àdduna su ma amutoon fit parce que Seydina Muhammad sama doom bi waxuma ne ne du ma ko ñàkk de parce que yàlla moo yor bakkanu doomu aadama mais da ngeen dégg leneen guddi googu Touré bàyyi ma fa sama avocat mi ngi taxaw dem jëli commandant commandant ñëw gaare otoom na naa wàccee xale bi sama jëkkër a ngi taxaw médecin yaa ngi taxaw commandant ngi taxaw ku ma enquêteur baa ngi taxaw maag ñoom maag ñoom ba vingt trois heures ma taxaw rek sama doom bi lekkul xiif trop ñu ne mën naa wàccee xale bi mën leen du wàcc mu gërëbal man mën naa wàccee xale bi mën a du wàcc xale bi bu ngeen may tëj da ngeen may tëjaale ak moom parce que xale bi sama biir bi la war a nekk nii daa génn rek mais heure am jotagul commanda dem na wax garaawul léegi mu dem bu mu demee ànd ak enquêteur bi ñu indi ñaari ponkal quatre personnes personnes yoo xam ne nii ñaaran ci suuf ñaaran ci kaw saal bu may kangouré bi saal bu mag la woon boo xam ne Dakar Matin am na ko fa am doom ñetti doom am na ko fa am doom benn pël bu ñeenti doom am na keneen ku fa nekk ak man maa nekk ci dikk ba ñun quatre personnes ñu ngi ci saal bi kenn ku ne ak sa lal ñu dem yebal ñaari ponkal naka ñu ne ko suy wàccee xale bi rek na ngeen ko jël Papa Alé guddi googu sonn naa su may sawi damay toog jonkan te xale bi ne nañ du dugg si duus ñetti fan ñu ñu ma coono boobu ñetti fan yàlla ñu teg ma coono boobu damay tëdd bu guddi war a nelaw mu wàccee xale bi foo ne dem nañ damay toog rek ñu dend ak man okk ma ne ma ñu ngi ñëw tiim la damay xool gis leen ci porte bi ñu taxaw pour luñ ma këfee yóbbu bàyyi fa xale ba Pape Alé lii lu ma gën a si àdduna am na hmm. ba ñetti fan yàlla yu mat ñu may xaar su ma la bëreet ñu la bëreet su may lekk dañuy taxaw tiim ma sangawu ma ñetti fan doo ma duus pour mën a dem cabine ñetti fan doo ma duus parce que ñi maa dugg ak sama doom si biir duus bi te xale bi du dugg duus. te ñi ngu maa wàccee sama doom bi da su ma ko wàccee ñu jël ma yóbbu ma si ay fen mais bàyyi naa lépp ak yàlla suñu borom bàyyi naa lépp ak yàlla suñu borom lii laa amoon li may wax sénégalais yi pour ñu déglu ko bu baax li ma dund lii laa dund est-ce que dëgg la ne am na ñoo xam ne dañ la doon proposer xaalis pour nga changer version barke Seydina Mouhamad ku ma njëkk a woo whatsapp la ma woo ay chiffres yoo xam ne numéro boo xam ne xaw ma numéro Sénégal la xaw ma numéro Europe bi ma woowee nama ma 15 millions nga changé version ma ko mënul nekk numéro ba dama xool a gistu ma xaw ma fu mu jaar deuxième fois bi maa moom boobu moom bettu ma inconnu lañ ma woo ma capturé ko mi sama téléphone ko 40 millions la wax ma ne du changé de parce que booy changé kon fenkat ngay doon parce que man li wax du lu loo xam ne dama ko inventé man li ma wax loolu laa gis te loolu moo am loolu moo am mais bàyyi naa lépp ci loxo yàlla suñu borom dénk naa sama bopp tamit yàlla suñu borom lu am rek ma xam ne yàlla la Pape Alé lii laa amoon li ma la expliqué pour Sénégalais yi dégg ko xam man lii laa dund. Ndeye Khady maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëf. merci beaucoup Pape Alé.